bu ICS ak ñi nga xam ne rek ñoom moom suuf sa direction bu ICS génn na ngir indi ay leeraange jëm ci coow loolee nga xam ne rek jamono ji mi di koy yi nga xam ne rek amal nañ ko bi nga xam ne rek moom la ICS doon bu doy waar moom la kër googee di jànkonteel addu jëmale ci leneen mu soxal vox populi mi nga xam ne rek tey tey jii xëyee na nag liggéey yi nga xam ne moom lañ doon amal jëm ci wàllu assises yi nga xam ne rek doon nañ ko amal jëmale ko ci wàllu yoon li ñu war a jàpp jamono ji nag ak yoon ni mu war a doxee ci réew Sénégal loo xam ne rek yi tukkee ci réforme yi fi mu toll nii ko dëxëñ bi bi nga xam ne rek jëwriñ ju ñu ko ma ngay xamle bi ne dinañ moderniser système judiciaire bi waaye tamit dinañ fexe ba Sénégal am justice bu moom boppam ci jamono ji nag liggéey bi nga xam ne moom la xaar bokk na ci waxtaan yi nga xam ne rek moom la ñu war a yëkkati jamono ji ngir xool daal nu ñu mën a saafara nag jafe-jafe yi nga xam ne moom la justice bu Sénégal di jànkonteel enquête yëglekaay feelu ko ne dialogue national bi ñu ubbi woon jëmale ko ci wàllu justice daj nañu bunt yi niki démb lu jëm ci ubbite conseil supérieur de la magistrature ak présence exécutif bi nag mu mel ne magistrat yi jamono ji nag ña ngay opposé wu ñeel yooyee réforme lu soxal autorité parentale wàllu divorce avortement ak ñaxtu yi nga xam ne rek mooy bàyyeekoo ci soxna yi lu jëm ci coowal suuf Ousmane Diagne moomee nag moom jëwriñ ji dellu siwaat na ci biir yëglekaay bi ne ay waxtaan yu am solo daañu ko ci amal ndax bu fekkente ni nag ñoom juge yi daal nañuy daje ci seen biir waxtaan ay résultat dana ci mën a tukkee le quotidien yëglekaay addu jëmale ci déggoo ak ñàkk déggoo yi nga xam ne rek moom moo am ci boobee dialogue yéenekaay bi ne lu jëm ci wàllum wàññi nag pouvoir yi nga xam ne rek mooy yu parquet bi nag déggoo am na ca waaye lu jëm ci bàyyi président de la république muy woy di jiite conseil supérieur de la magistrature nag foofee nag mooy patate chaude bi nga xam ne rek yéenekaay bi ne delloo nañu ko jomaay Sud Quotidien daal di koy feelu ne réforme ak modernisation yi nga xam ne rek moom lañ doon indi jëmale ko ci wàllu justice jamono ji nag verdict bi bàyyeekoo na ci assises yi nga xam ne rek moom lañ doon ndar képp ki démb ca jam ñaajoo yéene bi ne ginnaaw benn ayu bés boo xam ne rek ña doon waxtaan ci dialogue national boobee lu jëm ci wàllu réforme ak modernisation ci wàllu yoon démb ci talaata ji la ñu daal di dakkal mbir yi bokk na ci ponk yi nga xam ne rek tënk nañ ko ci boobee ndaje dina jëm nag ci wàññi dooleeg pouvoir bi nga xam ne rek moom la procureur de la république daal di amee taxawal ab juge des libertés et la détention lu jëm ci bàyyi njiitu réew mi nag muy woy di jiite exécutif bi ci kaw conseil supérieur de la magistrature nag jomaay fay jamono ji nag mooy arbitre bi le temps mooy dellu soit ci dialogue bi nga xam ne rek démb la ñu ko doon dar kepp yéenekaay bi ne waxtaan yooyee daal la ci gën a am solo rek mën nañ caa jàpp daal mooy lu jëm ci wàllu taxawalaat ab justice bu yees ak beneen doxalin fii ci réew Sénégal waaye tamit daal di limité lu jëm ci pouvoir yi nga xam ne rek mooy bu procureur de la république la séglekaay fellu ko ne leen li gën a am solo kay bu weesoo nag wàññi pouvoir yi nga xam ne rek mooy bu publique dina ci bokk itam ñu daal dakkal nag lépp luy délit yi nga xam ne rek moom la toppee lu jëm ci wàllu offense au chef de l'État Walf Quotidien xëyee niki tey jii nag ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum l'impôt ak lu jëm ci wàllu inspection du travail compte bloqué yi nag yéen kaay bi ne presse bu Sénégal jamono ji ñu ngi ci pression bu méttee métti l'observateur moom xëy tey jii nag daal xam le nii lu toll ci milliards moom la am ci wàllu déficit national jeexale yëglekaay yi ak wàllu tàggat yaram forfait bi nga xam ne rek moom la Sadio Mané forfait ci jongante bi nga xam ne rek war naa dox ci diggante Sénégal ak RD Congo ak Mauritanie yéenekaay bi di stade ma ngay samplaaj ne Sénégal naka la nar a def ci ñaari jongante yooyee sans Sadio Mané réew mi quotidien moom daal di àddu jëmale nag tey jii ci wàllu Ligue 1 ne Lamine Camara moom la ñu nominé trophée pépite de la saison mbokk yi léegi noonu fas ci yëglekaay jàmm ak jàmm. Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie may seen revue de presse